bu leen yàkkamti adduna yàkkamti baaxu ci yonent bi day am na fanweer ak ñett di woote lislaam yaa ngi léegi te ci menn at képp ci lay am réussite bi benn deux cent yëpp ci jafe-jafe rek ne tamit jafe xéewal gi diggee ci yàlla na ko kaay faatu hmm. waaye na mu bëggoon na ko moom loolu rek daal moo xam fekk nga moo xam fekkoo amal li nga bëgg bëgg nag nga am xalaat yu jub te baax ngir ay population future wala ay génération future nga fex ba saxalal leen dëgg ak mu loolu ku ko def. Mhm. da parce que yow ak pay nga ciy am sa gannaaw waaye ñoom ba ëllëgee isaab lañ ciy am ñoom ba xéewale dikkee ne moom du ko lijjantee yow pay gi ngay am mooy xéewale ak gi bi nga ko xeexee ba mu sotti lii mooy sag pay kon ñun bu ñu ñàkkamte ci suñu suñu assemblée bii danañ danañ jamaate élection te du yàgg sax nag ndax assemblée bii ku ne xam ne ne mënta dem mënta dem mënta dem xam nga assemblée bi mënta dem 2024 dañuy wote ay ay ay législatif bu ñu wotaat ay législatif fa la su boobaa danañ am majorité bu ñu ko may Ousmane Sonko rek bu ñu ko amee en tant que président danañ ko danañ ko criminaliser. d'accord waaw parce que criminaliser nañ fi viol te viol moo ko nguur jigéen man nga la nat ban ban moo ci gën a ñaaw bu ci gën a ñaaw. góor jigéen góor jigéen day gën a ah? ñaaw fuuf. moo gën a ñaaw fuuf te Macky Sall def na ko décret criminalisé kon ñoom dañuy fontoo rek yàlla nee na. Mhm. lu ñaaw ñaaw la am góor jigéen waaw. faa ahisa la jigéen li tax mu bon mooy moom bu lawee nit dootu dootu sax juddati fa loolu moo nekk conséquence bi ci gën a ndaw dafa ngóor jigéen mhm. ñun ñi di ay jullit xam nga ab jullit li ko atte attiwutub yéefar ab yéefar mën naa nekk ci ngóor jigéen lu mel ne Amérique ak France ak Allemagne te ñoom seenam koom-koom day yokk ndax yàlla dafa wax ne ba ñoom rek xéewal di ma leen di sotti ak fan yi guddee wér gi ma leen di may damaa bëgg la yes daadu isman damaa bëgg seen i bàkkaar dolli ko mhm. bu dee ñun nag buñ fi indee lu dul noonu en yàlla day indi aw Ah, ab yaram daal ne yéen damaa ma ak yéen accord ku wàcce yow yoonu ma ma ma wàcc mu dal ñun ak xiif la ñuy indil ak bekkoor ak taw bu ak taw boo xam ne bu njëkkee itam au lieu que mu ñoral la waaye da yàq sa kër yàq say tool problème bi mu la indil mooy tawat yoo xam ne doo xam noo koy tuddee doo xam foo koy faje ñun li jug tubaab yi jigo loolu lay wax ci góor jigéen conséquence bii ñàkk jur moo ci gën a ndaw daanaka parce que yàlla mu adduna moo ko sàkk moo ko soxla na min kulli shay'in xalaqnaa zawjayn la'allakum tashkuruun waaye da ko fi jëlee day jeex waaye ñaawteef moom da koy téye ba ëllëg mu di jënd ko. d'accord sëñ Modou euh, acharnement yi ñu nemmeeku fan yi ci journaliste yi. waaw ah, journaliste yi ñoom ñoo njëkk a acharné ci seen bopp ñoom. <laughs> waaw xam kañ ne ah, waaw <laughs> waaw ñu njëkk asana ñu asana seen bopp ñoom nuñ tax ñu asana seen bopp journaliste yi amoon nañ fulla ci jamonoy Ablaye Wade mm-hmm. ñoom boo nekkee télé privé mm-hmm. wala nga nekk journaliste vidéo ku bi mhm. koy bàyyi sonn na ndax amul jàmm ñëpp doon benn def benn say bañ tëjee Sud FM itam ñoom ñëpp def benn say wal fajiri jël jéngalu Sud FM daa ñëpp daan ko jàppal defe mhm. la ci génn léegi nag bi dikkee ba 2012 Macky Sall daf leen difficile difficile lan mooy jël ñii def ak moom ba ba lu beneen journaliste sax du leen itteel kon nga xam ne ñoom lu leen dal ñoo ko yóbbee seen bopp nag wu ñuulaa weex wa ak wu séew wala ngeen def na na gaa yi defoon wu ñuul waa ak weex ak siiw noonu la daan Macky Sall def gis nga TFM ba taxee ñuy jël ay charge détecteur ku mel ni te journaliste bi boobu xaw ma daaw demee ni ko muy charge Pape Alé gis ci àdduna man fii nii daan gis na ñoom ñëpp dañ ko daan respecté police da ko daan def gendarmerie médecin yi ñëpp ak jàngalekat yi journaliste yi laa ko mas a gisee man te loolu itam ñoom ñoo nekkoon exemple jot boobu ndax ñoom ñoo daan def affaire corporation moom ñoo ci gënoon a sévère mais seen intérêt moo tax nga xam ni lu leen dal rek li leen dal rek nañ xam ne lañuy la leen dale ko gën a metti nag waaye nag la ca gën a metti mooy mhm. mbir yi nag buy dal gor sa ca maandu rek di muñ aw di muñ ak ñàkk te nangoo liggéey liggéey wax éthique ak déwantul si moo cee gën a sonn mu ñoom Pam Ndiaye ñoo ñu ñoom nanguñ ko leen gar nanguñ ko leen neexal nanguñ ko leen jox ay privilège fii danañ population bi di wax dëgg ñoom gis nga ko ñoom ñoo am problème waaye wax ne gis nga paam Ndiaye moom ngeen jàppee ab victime jàppee ko ko ku nekk ci jafe-jafe xam hmm. ki ku gën a nekk ci jafe-jafe mooy formalisme bi nga xam ne état bi da koo téye dans la main di ko jox xaalis kooku moomutul hmm. bopp am ne a ñàkk liberté ci adduna mooy ak i alal lañ lañ soppee xelam ak i xalaatam alal lañ soppee ay doxo aw doxinam lañ soppee jikkoom kooku mooy victime bi gën a sonn ci adduna mooy ki gën a ñàkk liberté ay kayit ak tabax ay yooyu lañ ko moom est-ce loolu mat na sëkk pour moom doomu aadama kooku moom aadama moom moom adduna bi ko yàlla indi da koo defar ne damaa ne damaa sàkk aadama ngir indi ko fii ngir ngeen jëfandikoo xéewal ndax xéewal ngeen indi ko ngir jëfandikoo xéewal war naa wëlbatiku di la gën a ñàkk liberté ci adduna ki gën a am am na ko malgré mi ngi koo def am prison fekk moom am na liberté bu yàgg mhm. yooyu mi ko def ci prison bi ban ko gannaaw dem tëdd sa kër yaa ko gën a ñàkk liberté Xalifa Sall nee na jamono bañ ma am prisonnier siis bi ma tëjoon ñëw na ba ca man ne ma maa ngi lay jégalu xam nga gars yi parfois bu ñu sant dara dañ ko def Khalifa Sall moo mee moo waaj moo ko bi ku ci gën a am liberté parce que Khalifa Sall mi ngi kaso waaj mi ngi nelaw kee moom nelawut ba jaral ko mu ñëw daal mooy ne sa kër fa loo bëgg a dem déedéet liberté fii la bopp la ne d'accord ci ci loolu coromaxu Mandela bi nga xam ni mi ngi. ci coro ah, corom ndeysaan. ëmb bu toll ci juróom ñaari ñaari weer. Ah, xam nga rek gars yi dañoo ñàkk xam naa it bañ koy jàpp amuñu information waaye ñoom xam naa danañ ko bàyyi moom du yàgg. ko bañ ko jàpp mu amuñu information ci fi mu waaw amuñ ci information waaye itam ak rëy wur leen woon a jàpp buñ ko a xaar su mm-hmm. ko mën a jàppoon xool ay dossier médical na ko ay wayow naqari waaye fi nga toll tax mm-hmm. buñ ko waxoon loolu yi am nañ ci moom lu ëpp luñ mën a amee ci moom tey buñ ko emprisonné woon gis nga nit parfois kattan doo ko doxee si ngay doxee yonent bi dafa am bés gaa yi ñëw ne ko Ousseynou Kassa moo ñu yónni mooy lu mu wax gaa yi jël lettre bi jox ko yonent bi jàng mu ne ko fa inna laka nisful ard wala naa nisful ard walakin xawmun xuraysun walakin ak xuray xuraysiyun xawmun yaxtadduun man yonent laa léegi fa inni asratku fil amr fa inna laka nisful ard wala naa ne nisful ard dana ko maa yow tey doon naa yonent ni yow yaa moom genn wàll ak suuf si hmm. maa moom genn wàll ak suuf si waaye yéen waa xuraysin da ngeen de war nit ñu mën a jël gerte ga yonent bi ne yéen ñaar ñi lu ngeen wax ci li wax ñu ne ko ñun gëm nañ li yonent la ñu ne leen waaye yéen xanaa léegi yéen am ngeen sens yéen li ngeen dox ab yonent doo nga da ngeen ma wax akamaan axare waaye comme dañ leen yónni garaaw dinaa ko muñ xooku ñaar ñi yonent bi ñaar ñi mu waxal ñooñu du mbir mi ñem toogal ak ñi ko gëm ñooñu foofu la mbir mi nekk mooy dañuy xam ne kii naxewut dañu xam ne kii ku am tolérance mooy talaax yàlla na ko wala law kunta fassan xaliisal xalbi lan faddu min xawlik faafu xanhum wastaxfir lahum wasaawirum yàlla ko yéeme la na ko yow ku baax nga yonent baax a tax foo toog nit ñi dikk toog fa waaye ba tey rek njëggal gën a wéy li ngay def dee ko di def day doon day waxee dem yàlla yow mi leen moom sàkk leen dee leen dee leen jéggal li ngeen seq mi adduna yi dee ko waxtaan ak ñoom boo demee ba xam ne nag li ma la wax ne aayaat na ne ko ne ko jafe loolu moom bu ci am bu ci am ak kenn diisoo waxal gaa yi dégg te jafe rek moo ci kon ñoom bu fekkoon na Coro Mbofu Mandela bi ñu amee moom problème boobu justement rek dañoo xool ay document médical la ne ko ah yow am nga sens fi nga toll ndax waaye kon kenn du ñu àtte waaw waa Coro bu lu muy waxat sax dana ko seet ndax dana xam ne ñii ormal nañ ko te nit bu la xasee ormal wallahi lazim dañuy wax ne nit ku ne na nu mu la def noo ko def rek nam la tax mm-hmm. nu def nag ko defa tax d'accord noo jàngatee ñi nga xam ni ñi ngi leen di takk di leen génne ak i bracelet électronique <laughs> moom daa mel daa am ci bëggoon ab xaalis rek. ab xaalis waaw mooy ko ko gañe woon. garab ay seetaar sàll xam nga moom gañe. Hmm. waaw après dañuy essayé nii rek dañuy essayé xool ba xam mi ngi dox wala mi ngi marché loolu partenaires yëpp pare nañ ñu tàkkal leen ñoom bu dee essayé nañ bëgg nañ ko essayé garaawul mën leen a nañ leen recensé ay nit. dégg nga ñu jox leen ñu tàkkal leen ñu xool ba xam seen seen marchandise baax na wala baaxul loolu koy garaawul mën nañ ko. nombre <laughs> yi ci am yëpp nañ ñu ko jox ñu takkal ko ñëpp ñu xool ñuy xool ba xam baax na am baaxul loolu lañ bëgg mën nañ leen koo defal gratuitement te duñu fay dara waaw bracelet yooyu itam day loo xam ne ñoom loo ko tax a xamuñu ko parce que États-Unis d'Amérique ñaar ki ñu dekkal bracelet mhm. dañ lay vérifier ba xam na yow liñ ñu lay tuumaal yow léegi nag ginnaaw bi ñu xamee ne li ñu lay tuumaal ñu ne ah ci sa waay kat moom lii moom moo ko def waaye dañ ko ci prison amul benn njëriñ nañ ko bàyyi ci prison bi waaye prison bi ni mu ciy nekkee mooy dañ ci soxlaam ba pare nekk suñu contrôle nga xam ne moom bu nekkee këram dina la itam mi ngi ci prison bi bu nekkee ci restaurant bay lekk itam mi ngi ci bi bu demee liggéey ma ngi ci ba waaye mi ngi gàññe di gis ak njabootam mi ngi gàññe di am peex mi mi ngi gàññe dem ci restaurant yi et loolu mooy bénéfice bi tax nit ñi daan ko defar waaye fii moom ni ñu koy defaree mooy <laughs> amul ku ñu ko takkal te doo politicien mas ngoo gis man dañu ma xam ñëpp politicien rek maanaam nag ñu ko ñu kon day mel ne adversité politique lañ ko def dama la ngeen defar. moo ko tax a leen tax a jóg. waaw. <laughs> waaw constat boobu dafa mel ni gis nga ko ñu teg moo moo gisee muy daggal Sonko bracelet yooyu pour saboter seen bracelet nee naa saa yi dana dem prison de <laughs> nii mu leen di minimiser nii ba moo xam ne mu ne ceeb bi sax na gaañ sax dana dem prison <laughs> sëñ ah. ñi lay jaajëfal bu baax waaw ah, jërëjëf waay jërëjëf ñu leen mbég nañ lool ci seen teewaay ci kër gi waaw eh. ah, di leen ñaanal di ko sàkku ci yéen wasalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilah mu nekkoon euh, Serigne euh, Modou Asta Mbacké euh, bokk ci membre Modap voilà moom lañ àndaloon ci bile émission ñu amoon mbégte bu baax a baax fekk si woon ko ci këram mu dalaloon ñu tey jaajëfal Abdou Fall bi nga xam ne moo nekkoon ci euh, réalisation bi jaajëfal yéen itam ñi nga xam ne yéen a ngi doon seetaan ci 313 digital di leen wax ni rek bu leen fàttee di abonné di bës ci cloche de notification bi ndax ngeen mën continuer di jot suñu ay euh, programme li laata loolu kon ñu ngi leen jox di daje léegi léegi ak yeneen i programme ndax programme yi dafa wéy rek di continuer jërë ngeen jëf